salaamaaleykum suñu mbokk internet yu euh, Dakar Net dañu kontaan bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun seen émission gise ak ñëwaat na toujours ngeen ci ànd ak Ouzin ñuy wax faral di waxtaane li nga xamante ni moom mooy actualité di fi dalal képp nga xamante ni actualité bi euh, xam-xam dafa màcc jëm ci li ñu taamu ngir waxtaane ko tey ñu dalal ki nga xamante ni moom mooy Imam euh, Dramé mi nga xamante ni analyste politique la mais également euh, dafay yëngu ci euh, wàllu diine dafay def aussi ay conférences dafay joxe xam-xamam ci actualité réew mi di participer souvent ay manifestations li nga xamante ni mooy politique di participer ci ay manifestations citoyennes tey balaa ñuy sore ci waxtaan bi dañu koy nuyu bàyyi ko mu niroog mook internet yu Dakar Net yi ñu ñëw ci yaatal bi Imam ñu ngi lay waa asalaamaaleykum wa rahmatullah ousin maa ngi lay fay di la sant di ci occasion bi nga ñu may pour ñu jàkkaarloo euh, waa waa Dakar net na ah. di nuyu mboolem sénégalais yi fu ñu mën a nekk moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew di nuyu tamit kilifa diine yi kilifa diine yi mooy diine yi islam bi ak église bi di nuyu mbooleem képp koo xam ni yaa ngi xeex liberté ak démocratie des ci réew mi rek maa ngi lay nuyu man Imam Dramé. Mm-hmm. alors Imam euh, Dramé xam nañ ni euh, fan yëpp actualité bi euh, bokk na si mooy MD2 donc manifestation bi nga xamante ni doon ngeen ko woote fële et sax je que li ngeen doon sàkku am ngeen ko. Mm-hmm. léegi lan ngay ban gis nga am ci sàkku bi ngeen doon sàkku am ngeen ko léegi xanaa nag waxatoo leen dara. waaw d'abord maa ngi nuyu mbooleem sénégalais yi nga xam ni. Mm-hmm. ñëwoon nañ ci manifestation bi wane ni. Euh, li wolof naan mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam parce que réew mi euh, li ñuy tuddee manifestation dafa am histoire ak réew mi ñi yor réew mi tey dañoo àndoon ak ñoom di manifester ba jëlee fi Ablaye Wade kon tey bu ñu demee ba gis ne sunu démocratie day dellu ginnaaw li nga xam ni moom la ñu loi may sunu république may ñu ko mooy ñu taxaw def manifestation bu pacifique mm. maa ngi profito di félicité mbooleem leader yi nekk ci m ñu mel ni ñoom Cheikh Tidiane Dieye ak mouvement citoyen yi ci nekk di ci di di di nuyu surtout le président Ousmane Sonko ak ku mel ni Bougane Gueye Dany euh, ak mbooleem daal leader yi waaye di nuyu surtout sénégalais yi nga xam ni nag euh, ñoom ñoo ñëwal seen bopp nga xam ni joxuñu leen paas mm-hmm. joxuñu leen t-shirt ñoom ñoo ñëw xam ni réew mi seen réew la te li fi nekk ñoom ñoo ko fi teg te heure bu ñu taxawee pour jëlee ko fi. Mhm. mën nañ ko fee jëlee loolu kon loolu laay njëkk a def mooy kàddu yi cant la mhm. manifestation bi nag liñ ci war a jàng bari na parce que mbirum président Ousmane Sonko boo seetloo bi mu xewee Sénégalais yëpp jóg taxaw bañ ni duñ ko yóbbu ci kaso bi lànk mu jaral leen lu nekk ba li ci am ñun ñëpp ñu gis ko ba fukki bakkan ak ñett faatu ci. Mhm. ñu ngi ciy profité di sant ku mel ni Serigne Mountakha nga gis ni jóg na wax ci dox ci moo xalifa généraux yëpp ba nguur gi dellu ginnaaw ci pexeem yooyu nga xam ne doon na ko pexe nga xam ni complot la bu leer boo xam ni moom lañ naroon a def président Ousmane Sonko. mais mais eh, doguma la nag ah, mais complot bi nag yoon moo koy moo koy leeral ah donc du du da ngay wax complot rek nit ñi war a jàpp ni complot la je que yoon moo ko war a leeral te dossier bi mi ngi en mm-hmm. ñu bàyyi ba dossier bi egg ñu mën a waaw xam nga wolof dafa am lu mu wax caga kenn du ko nax ñaari yoon Ouzin ñun nguur gii fi nekk yàlla dafa dogal dañoo bokk ci ñu ko fi teg man mi di wax yow le 23 juin maa nga fa woon korog bi ñuy rey du Diop maa ngi taxaw yàlla maar day taali yi nañ ma rey kon ñun tooguñu ba tey rek ñuy wax mais dañoo gëm ni Macky sàll ak nguuram képp kuñ mus a jàpp ngay opposant dañ laa kompaloo ba jàpp la dugal la ci kaso bi parce que li ñu wax ni ay fee la kenn mënu ko dindi Karim Wade dañ ko fee jiiñoon CREI mu ànd ak fukki nit ak juróom yoo xam ne dañ leen limoon ci ay dignitaire ci régime wàdd ñu seppi ko ci mel moom tëj ko ci kaso bi exilé ko génne ko réew mi loolu complot la kon loolu nekkatul justice ku mel ni xalifa Ababacar Sall bi ñu demee ba xam ne mënuñu koo gañee ci Ndakaaru dañoo xëy tuumaal ko kompaloo ko jàpp ko tëj ko ci kaso bi kompaloo boobu rek moo continuer hmm. ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko askan wi nag. Hmm. comme li ma la wax kenn du ko nax ñaari yoon. Hmm. askan wi jóg taxaw lànk. ñi am fulla ak fayda te moom seen bopp. te nga xam ni seen deret yi baax na ñu taxaw ni Ousmane Sonko du dem ci kaso bi. loolu kon jàpp naa ne suñ ginnaaw la nekk. moo tax ñun dañoo gëm ni kompaloo la. bu leer. loolu moom amuñu ci sax sikk sàkka. waaw mu des nag ñu ngi féliciter sénégalais yi maturité bi ñu am. ba teel a gëm ni réew mi complot dootu fi jàll parce que réew mi république la euh, mu waroon a am ay institutions yoo xam ne dañ koy dëgëral waaye malheureusement demeewul noonu réew mi benn nit moo fi nekk muy président Macky Sall muy buur di bummi koo xam ne bokkut ak moom xalaat mu jàpp la tëj la ci kaso bi ku bokk ak moom xalaat bokk ak moom parti loo mën a def dara du la ci fekk loolu mooy réalité yi. Mhm. d' accord alors bu ñu bu ñu gënee gënee avancer un peu ah. donc mhm. Moustapha yàggul dara gis nañ ko dégg nañ ko ci presse bi moom mi wax ni dafa bëgg a pétition 5 millions de personnes yoo xamante ni dañuy signer pour à ce président Macky Sall def troisième mandat. donc loolu yow naka nga ko gisee parce que yéen souvent da ngeen faral di waaw pétition bi moom jàpp naa ni am na lu ko ëpp doole mooy constitution réew mi mhm. réew mi liñ naan luwaay yi bi nga xam moo tënk réew mi loi boobu moo tere Macky sàll mu bokk kon jarul pétition léegi nag euh, bu doon pétition bi sax keneen yëkkatina ko mhm. ku dul Moussa jaxate xel man na cee dal mais ñun dañoo gëm ni Moussa Diakhaté Macky sàll lay liggéeyal lu tax Moussa jaxate dafa bokkoon ci ñi nga xam ni régime Macky sàll képp ku ñu fi yóbbu kaso Moussa Diakhaté dafa bokk ci ñi wax ba ñu yóbbu la kaso bu ngeen fàttali ko bi ñuy jàpp Karim Wade ci CREI yi Moussa moo occupé woon média yi comme ni ko occupé nii di chargé Karim Wade wane ni dafa sàcc alal réew mi dafa war a dem kaso bañ jàpp ko Khalifa Sall ñi wax bañ jàpp ko tëj ko ci kaso Moussa Diakhaté moo nekkoon ca kanam Ousmane Sonko mii commencé na ko fi mu nekk nii mu ngi koy commencé di chargé. parce que Ousin il faut politiciens yi ñu respecter Sénégalais yi xam ni ñi ñuy waxal ay boromi xel lañ te gis nga mu Moustapha Diakhaté yow mënoo ni da nga yaa ak Macky Sall da ngeen am problème te soxnaam si nga xam ni mooy bras droit am di ko jàppale ci wàllu politique fu mu taxaw mu taxaw fa nga ni yéen ñaar da ngeen a mel ni mu roog soow loolu xel nanguwu ko xam nga yonentu saay salaam dafa wax ni ki yées ci nit ñi mooy ki am ñaari xar kanam mu ni charrun naasi zul wajhayni ki yées ci nit ñi mooy kii wane ni dafa xonq fekk dafa verte sëñ Abdou Lahad Mbacke dafa am lu mu daan wax daa wax ni as gor dañuy xool bu as gor bu taxawee ni gor laa dañuy xool waxi démbam ak waxi tayam bu gisee waxi démbam ak waxi tayam méngoo ñu xam ne gor la bu méngoo nag lu mën a wax mën naa jàppee boppam gor mais du gor mu Moustapha Diakhaté amatul crédibilité ci Sénégal ba war a mën a jël naan day day day day day pétition loolu jarul pétition. Ah, constitution bi moo wax ni Macky Sall mënta def troisième candidature. Mm-hmm. te jàpp naa ne pétition boobu dina ci wéet. Mm-hmm. maa ngi ko dégg nag muy chargé président Ousmane Sonko. waaw si loolu laa bëggoon ñëw ah, parce que nee na yéen. waaw ah, waa MD2 nee na jàpp en tant que Ousmane Sonko nee na ay opposants déguisé ngeen. donc mm-hmm. yéen seen mouvement yi ngeen def yëpp boo xoolee pour xalal yoon euh, ki nga xamante ne Ousmane Sonko loolu la si wax. waaw xam nga mouvement MD2 ña fa nekk xam nañ leen. ay mouvement Y'en a marre ñëpp xam nañ position yi ñu mu sa taxawee. Mhm. ñoo bokkoon ci ñi taxawal ca xeex ba. Ah, ba muy metti booba ñun Moussa Diakhaté xamuñu ko. Mhm. Moussa Diakhaté dafa bàyyi ba Macky Sall fa falu mu def sondage am daw. laqatu maa ngi dégg maître Djibril War di ko wax tey. Mhm. moom malgré du may d'accord ak moom mais li mu wax dëgg la Moussa Diakhaté dernier moment la ñëw APR. PDS la nekkoon PDS la nekkoon. dafa dem ba PD nguur gi daanu mu profité ñëw di chantage Macky Sall bu ko neexee mu chantage Macky Sall mais ñun duñ Macky Sall ñun. démbam fi la ñu fekk tax xam nañ ko. Moussa jaxatee bu doon tiir état islamique lañ ne xam nga dañ koy rendi dañu dagg bopp bi. waaw parce que Moussa Diakhaté dafa ŋàññi yonent bi. publiquement waaw yaakaar da ngay ku tal ni yonent bi da ngay ñëw rek ŋàññi ko nii après nga jégalu mu jeex Moussa Diakhaté fukki at yi ñu jëm waru woon wax ci ci ndax dafa toog ku tal ni yonent bi salaay sallam deux milliards et poussière gëm ko wala trois milliards nga taxaw di ko comparer ak ñu wax nga ni da ngaa juum kon ça signifie que ni mm-hmm. moom bu doon nit la day xam ni gàllaajam toj na waratula wax ci réew mi amatul crédibilité m 2 ña fa nekk xam nañ leen bu dee Cheikh Tidiane Dieye ma fa nekk di ko coordonné xam nañ ko xam nañ waxi démbam ak waxi tayam le mouvement Y xam nañ seen waxi démb ak seen waxi tey bu doon ay post rek kon dañuy dem Macky Sall jox leen ko mais ñooñu démocratie moo leen tax di xeex défendre dëgg moo leen tax di xeex kon waxi Moustapha Diakhaté suñ ginnaaw la nekk m 2 liñ dajale korog ci mbooloo mm. foofu bu doon ñuy naxaate la bu ñu leen woowee duñ ñëw marché bi matul sax vingt quatre heures ci lañ ko ci lañ ko programmé nga gis ni Sénégalais yëpp ñëw wuyu si jóge fu nekk ñëw te marché boobu sax bu doon Macky Sall déggal na kilifa diine yi du am parce que sëñ Mountakha Mbacké jóg na dox ci wax ci ba Macky Sall jox ko promesse ni ko dinaa génne képp ku nekk ci kaso bi waaye Macky Sall ku ne xam na ni moom rapport de force la xam moo tax bi bi gars yi jógee def rapport de force ci saa si nga gis ñu commencé di bàyyi nit ñi. Hmm. et puis ñu doon wax naan mbas mi mbas mi xam nga problème Ousmane Sonko. Hmm. da nga doon dégg ñaa mbas mi moo tax sénégalais yi génn. marche korob wane na ni mbas mi taxul sénégalais yi génn sénégalais yi ñoo doyal ci li fi nekk. doyal ci ay slogan doyal ci yaakaar gi ñuy ah. tas. ci ci tas ci askan wi. payit ah. parce que tey Sénégal du ñuy wax fuuta tampi waxtuñ fuuta tampi tey Sénégal tampi la wax. Hmm. amul benn sénégalais bu am crédibilité. te gëm démocratie gëm ni Macky Sall toogam ci réew mi day indi ak dal tey lii tax ak dal am ci réew mi mooy ñetti at yi fi dese Macky Sall ñu gunge ko comme ni ko président Ousmane ko waxee ñu gunge ko bu paree mu génn réew mi dem organiser ay élections yoo xam ne moom du ci bokk te du moom mooy tànn ki fi war a toog M2D mm-hmm. loolu la wax alors euh, euh, ki nga xamante ni mooy maître Djibril War aussi ah ci émission bi mu doon euh, seq ak suñu naataango yu Walf mhm. donc def na tamit ay ay ay wax na ak xalaatam si par rapport ak justice bi wax na également xalaat xalaatam si président Ousmane Sonko et d'ailleurs mi ngi wax sax naan Ousmane Sonko dañu ko war a tëj kaso yooyu noonu donc est-ce que est ñoom taxawaay boobu taxawaay taxawaay bu nekkul nekk na taxawaay bi gën parce que ñu ngi naan jàmm dafa war a a tëj wala dafa war a tëj wala mois dafa est-ce que loolu day day dëggal li ma la wax rek. Hmm. xam nga ñoom esprit bi ñu am mooy esprit diabolisation esprit yàq doomu aadama. Hmm. esprit euh, esprit tuumaal nit. Hmm. loolu loolu ñoom politique boobu lañu doon def Sénégal yi nag ñoo dem ba découvrir loolu. gëm ni kundobin rey sa maam boo gisee ñu lu ñuul da daw xam maître Djibril moom amul benn importance bëgguma ko ko jox sax parce que amul benn importance amul base politique day coow noonu rek dañ benn rëboo la rek bu ñuy bu buñ yor nii di ko di ko di ko manipuler muy muy muy wax. xam nga réew mi euh, jàpp naa ni tëj Ousmane Sonko moom. Macky Sall ci boppam xalaatatu ko. te nekkatul ci ci logique boobu donte nag ñun dañuy vigilant. parce que dara duñu bett. parce que dégg nañ déclaration bi nga xam ne Barthélemy Diaz wax na ko. ni ñu ngi ci ay pexe pour jàpp Ousmane Sonko ci mois de septembre. te loolu ñun ñu ngi ci ñu jël nañ ko au sérieux ndax Barthélemy Diaz lépp lu mu mus a wax ci politique ñun teg nañ ci suñu bët moo tax wax ji duñ ko sànni noonu man daal li may wax maa ngi woo xalifa généraux yi ñu am ñu xam ni ñu xam ni fitna moom mu ngi nelaw te képp ku ko yee nag yow yaay yeekatu fitna bu mag bi te bu wax naan jàmm jàmm du lu ñuy wax lu ñuy dund la la paix c'est pas un mot une mode de vie loolu philosophe bu ñuy wax Hegel moo ko wax Macky Sall bu bëggee jàmm ñun jàmm lañ bëgg parce que réew mi ñun ñoo ko fi ëppale ñun ñi ñoo ëppale Macky Sall ci réew mi ñun suñu maam yi ñoo tabax réew mi yaa ngi dégg mhm. kon ñun réew mi tàkk amuluñu benn njariñ mhm. mais Ousmane Sonko kenn amul fitu di ko xool naan ko sa bët bi suufa ngi ci réew mi ñoo ci d'accord ko jàpp nag euh, euh, imam su ma te moom moom sax ñoom fi mu ne dem procès arrangé tu leen moo wax la dëkk ñoom bëggu ñoo dem procès parce que Sonko boo xoolee bi mu génnee ah. sorte mu bi def dani maa ngi bëgg ñu dem procès ci lu gaaw parce que xam na ni ñoom bu ñu demee procès du ñu am dara moo tax fi mu nekk nii li leen dese mooy yàq deru Sonko te loolu gëw ma ni dañ koy réussir parce que bi biñ songee Ousmane Sonko pour yàq deram tuumaal ko Sénégalais yi dañoo gën a daw bëgg ko man mi di wax yow daawuma fréquente Ousmane Sonko xaw ma ko woon daawuma ko defendre donte politique am woon na ma waaye bi ma gisee nii ñu ngi ko bëgg a jaay doole néewal ko doole ci laa jóg taxaw ni leen loolu du fi jàll. mais mais en fait lu mu bëgg a xam mooy exactement yow da nga bokk si Pastef. wala bokkoo si parce que su suñu la déggee wax. Mhm. on a l' impression que ne à ce que yow moo am wala voilà expliqué ñu un peu question bi am na solo. Mhm. man ñi ma xam. xam ma démb xam ne man du ma militant parti. man xaw ji ma ci benn milité ma ci benn parti parce que parti pour nga milité ci mouvement citoyen foofu laa ñëw parti pour nga milité ci da ngay jënd carte de membre man militant Sénégal la mais man dama bokk ci ñiy jël position su ma gisee fii la dëgg nekk ma ñëw taxaw fa guddi yi damaa gis ni Ousmane Sonko moo nekk ci dëgg ma ànd ak moom ànd ak moom nag taxul ma nekk taalibeem wala moom muy jëmee fu ma war te jëmee man Ousmane Sonko daf maa fekk ci xeex bi man lu mat ñaar juróom-ñaari at depuis ma jóge Égypte ba tey maa ngi ci réseaux sociaux yi te du jot gu ma am daara laa yor yor école di ab directeur u école yaa ngi dégg di ilimaan fa ma dëkk àndulaay ndakaaru gii ma fi imaam xam kon man aw ma jot dib sëriñ comme ñëpp di joxe werd kon aw ma jot mais réew mi dafa am lu yonent bi saay salaam wax te ma gëm ko mbiru jullit ñi ku mu yitteelul bokkoo ci lislaam man lii may xeex dépassé na Ousmane Sonko injustice ba ba ba Cheikh Omar Fouti yu doon xeex ba fi tubaab bi duggee pour teg réew mi jaay ñu doole. Mhm. injustice boobu lay xeex. injustice ba Cheikh Ahmad Bamba doon xeex ba fi tubaab bi duggee pour jaay ñu doole injustice boobu lay xeex. injustice ba Cheikh Seydaaji Malick doon xeex laay xeex mhm. injustice ba sama sëriñ Cheikh Alhaji Abdou Aziz doon xeex moom laay fas yéene continuer di xeex mhm. yaa ngi dégg dafa fekk nag nit boo ko bëggee jàppale da nga ciy fës man dama bokk ci ñi fës ni damay soutenir Ousmane Sonko ci combat bi pour kenn du ko jaay doole parce que réew mi kenn moomu ko réew mi république la ñun ñëpp ñoo fi yem un peuple un but une fois Macky Sall mii korog bi ko Ablaye Wade naree jàpp man mii di wax ak yow dama bokkoon ci njug jox taxaw Égypte la ma fekk daan ni ñun étudiants yi waru seetaan ñuy jàpp Macky Sall te boobu xaw ma Macky Sall <laughs> ça veut ñun tooguñu ba tey ñuy xeex <laughs> te bis bu bu laajee dem bokk Pastef ma def ko mm. mais pour le moment man duma ku am ay ambition ci politique non pour di wuti dara non man xamal lu ma amal solo. Hmm. ma bokk ci ñi nga xam ni su ma taxawee ak sénégalais yi di wax dinañ xam ni kii li muy wax ci xolam la jógee di duggaat ci seen suñu xol. seen xol d'accord parce que bu doon ay poste rek Macky Sall mën naa dem jege ji ko parce que ñu ko wër ñëpp xam naa leen. Hmm. mais du loolu du loolu moo ñu tax di xeex li ñu tax di xeex mooy république des ci réew mi démocratie des ci réew mi contre pouvoir des ci réew mi. Hmm.